del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information jërë ngeen jëf yéen ñi safoo seetaan Feeling Dakar TV li gën a fës ci xibaar yi nag bokk na euh, génn bi nga xam ne démb ki nga xam ne euh, mooy président Ousmane Sonko dem na seeti ki nga xam ne mooy Khalifa Ababacar Sall euh, dinañ ko gën a yàq ponk yi nga xam ne waxtaanee nañ ko fa ba tey tamit dinañu waxtaanee ki nga xam ne mooy Ousmane Tunkara ginnaaw bi ñu ko tegee loxo fële ci États-Unis ñu ñëwaat ci nu mu gën a yaatoo rek ba tey rek ñuy waxtaanee li nga xam ne mooy autoroute à bi nga xam ne jot nañ ko waxtaan waxtaanee démb entre ñi nga xam ne ñooy Eiffage Sénégal ak nguurum senegal ñu nemmeeku ci ay yenn coppite euh, ba tey rek dinañu waxtaanee li nga xam ne mooy point Covid 19 jeexale suñu flash défaut li nga xam ne mooy tàggat yaram ngeen taaxeerlu tuuti euh, ñu faram fàcc leen li gën a fës ci yéenekaay yi. yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people sport politique Feeling Dakar. yaa ngi Feeling Dakar Feeling Dakar salaamaaleykum internetu Feeling Dakar comme ni mu ko waxee ci sama jalbeen xibaax yi euh, ki nga xam ne nag mooy président Ousmane Sonko ginnaaw bu mu génnee prison gis nañ ko mu amal ay visite di euh, nga xam ne ñoo ko jàppale ci euh, jàmmaarloo yi bu ko nemmeekoo ci réew mi ba léegi ginnaaw mu seeti jee nag ki nga xam ne mooy docteur Babacar Diop seeti waa Y'en tamit seeti ñi nga xam ne ñooy mouvement boobu di frap démb nag dem na fi nga xam ne mooy siège Taxawu Sénégal seeti ki nga xam ne mooy naataango moom Khalifa Ababacar Sall ñoom nag bu ñu jëlee kàddu nak ki nga xam ne mooy président Ousmane Sonko nag moom dafa wëyal rek li nga xam ne mooy indiwaat li nga xam ne mooy état de fii ci réew mi ba pare nag ñi nga xam ne tamit teg na lañ loxo ci jàmmaarloo yi mooy ñi nga xam ne mooy otage politique yi ñu génnee leen ci ni ma gën a gaawee ñu saytuwaat tamit li nga xam ne mooy fichier électoral yi demaat ci li nga xam ne mooy respecté calendrier électoral bi dem si jongante yi ñu mën a xool ku nekk li ngay jar ba tax na rek moom tamit nee na li nga xam ne mooy euh, kii di euh, Khalifa Ababacar sàll ak ki nga xam ne tamit euh, mooy Karim Wade dañ leen war a delluwaat seen état civil yi pour ñu mun a jongante élection présidentielle yi ñu dégmal 2024 ba tey rek ñu desandi ci conférence de presse kii di Khalifa Ababacar Sall nag bu mu jëlee kàddu nag mu ngi rafetlu taxawaayu Sénégalais yi si di si coow li bu mu jógee ba léegi moom nee na nag moom mu ngi fier ci ki nga xam ne mooy président président Pastef Ousmane Sonko ndax constance bu muy euh, dawal boobu ba léegi résistance bi ak bañ bu muy bañ ba léegi euh, fu mu nekkoon jugu fa ba tey rek moom nee na euh, jamono bu ñu toll nii nag ñi nga xam ne ñooy gujjéeg politique bi dañoo war a renforcer wu gën a am doole mën a jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoo faree ci nguur bi ba tey rek nee na bu ñu bëgg a dem li nga xam ne mooy élection yi ba tey ba tax ne duñu ñu bu baax li nga xam ne mooy fichier électoral yi moom nag rafetlu na taxawaayu sénégalais yi comme mu ko waxee ba tey rek moom nee na euh, en 2017 bi nga xam ne amoon na coow lu ak moom ak digganteeg nguur gi euh, taxawaay bu ñu taxawoon nii suñ ko taxawee woon amaan na euh, ki nga xam ne mooy moom jëmmam ci boppam du demee noonu. ba tey rek ki di Khalifa Ababacar Sall moom nee na tamit xeex bi nekkoon na xeex bi nga xam ne pour waxoon na ñett si ñetteel nit ki nga xam ne waroon nañ ko mun a sacrifier ci opposition bi ba tax na rek problème Ousmane Sonko bi nag ak bañ li nga xam ne ñoo ngi leen koy tekk depuis boobu ba léegi nag nemmeeku woon nañ ko ci moom ak ci nga ki nga xam ne mooy euh, may euh, sa Wade euh, dañuy dem rek jëli ki nga xam ne mooy Ousmane Tounkara Ousmane Tounkara nag xamee nañ ko ab activiste euh, di def ay vidéo ci réseau sociaux yi di wax ay euh, ñagas ñagas ci kaw ñi nga xam ne ñoo faree ci euh, ci pouvoir bi ba tax na rek moom ginnaaw bu mu génnee woon nag am ay kàddu yu ñagas nag tegoon nañ ko loxo fële ci États-Unis mais jamono bu ñuy wax ak yéen nii nag ki nga xam ne mooy Ousmane Tounkara moom nag jamono bi moo ngi service de l'immigration ba tax na rek ñuy xaarandi ki nga xam ne mooy usman Tounkara fii ci réew mi ñu jébbal ko ñi nga xam ne ñooy état du Sénégal dinañ leen ko toppal ci suñu yeneen jotaayu xibaar dañuy ñëw nag ci li nga xam ne mooy autoroute à dakaar Dakar AIBD nemmeeku woon nañu contrat boobee tàmbali woon ci président Abdoulaye wàdd nag ñëpp ñaawlu woon condition yi nga xam ne contrat boobu teg nañ ko ba tax na rek jamono bi ñuy wax ak yéen ni ñi nga xam ne ñooy Eiffage du Sénégal ak état du Sénégal ñoom nag am nañu ab waxtaan ba jox li nga xam ne mooy 25 pour cent ci seen capital ki nga xam ne mooy état du Sénégal euh, toll si 800 millions euh, francs CFA si suñu euh, koppar ba tax na rek boobu ba léegi nag ñu nemmeeku woon ki nga xam ne mooy état du Sénégal nekkoon ab investisseur ci projet boobee musul jot dërëm bu jugee si Eiffage ginnaaw ñaar téeméer yi nga xam ne moom mooy à titre posthume moom lañ doog jox ki nga xam ne mooy état du Sénégal jamono yi nag li ci des mooy waxtaanee wàññ tarif boobee ci autoroute à péage Dakar AIBD ba tey rek ci waxtaan boobee jàpp nañu juróomi at yi nga xam ne état du Sénégal yokkal na ko Eiffage pour mu wéyal li nga xam ne mooy liggéey autoroute à péage boobee. dañuy jëli communiqué bi euh, jugee fële ci ministère de la santé et de l'action sociale jëmale ci point du euh, jour Covid 19 euh, tey nag sur 1892 tests réalisés 192 yi nag ñoom ñoo amee lii di mbas bi tey nag ñu mun si nemmeeku 56 cas contact 136 yi nag transmission communautaire la ñuy nemmeeku tamit 42 cas grave jamono bi ñuy wax ak yéen nii 283 patients ñoom nag jot nañ leen euh, contrôlé négatif ba bàyyi nañ leen ñu bi euh, seen kër euh, neuf décès la ñu nemmeeku démb ci mardi bi ba tey rek bi mbas bi duggee ci réew mi ba léegi ñu mën si jàpp 37 254 recensés 33 326 yi nag jot nañ ci wër bi mbas bi duggee ci réew mi ba léegi nag 990 personnes ñoo si jot ñàkk seen bakkan ba tax na rek jamono bi ñuy wax ak yéen nii 2937 ñoo nekk sous traitement euh, démb nag euh, ci mardi bi nag euh, lu tolloog 5089 personnes jot nañu jël seen première dose vaccin ba tax na rek bi campagne de vaccination bi tàmbalee ba léegi mun nañ jàpp 144 207 personnes ñoom nag jot nañu jël li nga xam ne mooy seen première dose vaccin ba tey rek internetu Feeling Dakar ñu fàttaliku leen li nga xam ne mooy mbas bi mu ngi ci biir réew mi ngeen di takk seen masque di fagaru ak li nga xam ne mooy gel boto alcoolique yi euh, ba tey rek euh, soo leen mu ne moytu li nga xam ne mooy euh, rassemblement yi ñu jeexalee suñu flash d'info li nga xam ne mooy tàggat yaram dem jëli suñu international sénégalais boobu di Idrissa Gana Gueye di tàggatu fële ci Paris Saint-Germain ginnaaw mbas bi nag gis nañu jafe-jafe yi nga xam ne dugal na ko ci réew ma ba tax na rek moom jël na li nga xam ne mooy 260 panier dund jagleel ko étudiants yooyu faree ci Île de France ba tey rek ginnaaw ginnaaw bi coow li Ousmane Sonko jugee tamit gisoon nañu euh, ki nga xam ne mooy ministre Malick Sall di ministre de la justice mu yëkkati ay kàddu jëmare ko ci mbër yi ba tax na mbër yooyee nag génnoon def réplique bu euh, métti ba tax na nag ki nga xam ne mooy euh, ministre Malick Sall nag jot na dalal ñi nga xam ne ñoo faree ci association bi nga xam ne Gris Bordeaux bu Fass moo ko jiite moom nag jot na yëkkati ay kàddu di baalu ñi nga xam ne ñooy askan yu féetee xam jotoon na leen euh, cité ci boobu interview mu amee woon fële ci France 24 euh, ba tey rek ñu jëli ki nga xam ne mooy Edouard Mendy di euh, tàggat fële si Chelsea góol boobu nag moom tey nag dafa war a confirmer li nga xam ne mooy match boobee seen diggante ki nga xam ne mooy Atlético ginnaaw buñ leen doolee si match aller Ligue des Champions li ñu weesu tey nag ñu mun a xaarandi boobu match si digganteeg ki nga xam ne mooy Chelsea ak Atlético Madrid dañuy euh, jeexalee suñu tàggat yaram rek euh, euh, li nga xam ne mooy résultat yi rusande démb champion bi am jamono bi ñuy wax ak yéen ñi nag tey démb ki nga xam ne mooy Real Madrid moom moo dóor Atletica 3 buts à ki nga xam ne nag mooy Manchester United dóor équipe allemande bi di Mönchengladbach par 2 buts à 0 li lañ leen indiloon ci ay xibaar internet Feeling Dakar kenn la ak jàmm ñu leen di ñaanal